alaikum wa Sénégal donc tay dañu xey fi ci Égypte ñu gis ben journal bu ñuy wax témoin nga xamni bu du journal bo journal bu régulier la contre le président Macky Sall contre ñi and ak mom. Tay fi Égypte ñi fi ñew ñep ñu fi wara ñew lañ. ay sénégalais lañ nationalité bi bi Sénégal mo ci Guinée ci Burkina Faso newu ci su fekkee nag nit ki da nga iñaan wala nga sa iñaan ak sa soxor jëmale ko sa bopp mais journal boo xam ne du jar journaliste fa nekk dañoo tardé ah nga xëy suba teel sénégalais yi nekk ñëw taxaw di encourager nit ñi di góor góorlu pour jàppale équipe bi mu dem ngay bind naan la fii ñi fi ñëw ñëpp li fi nekk amul dara lu fi yëm nit amul dara loo xam ne lu jomb nit la fii dañ fi war a ñëw ñëw fii ay sénégalais lañ comme tout le monde journaliste yoo xam ne man de taxawaalu lañ nekk ci baar yi ba pare ñëw di amer nit ñi naan ay sénégalais lii il faut arrêter seen soxor bi ngeen soxor bu njëkk ba nit ñi dañu soxoroon di ko nëbb yéen na ngeen soxor ba pare di ko wane wasalaam